lay fay. ci loone Ousseyn borom wasaare maa ngi sant yàlla. naka dëkk. waaw dëkk baa nii di neex rek. waaw ah, neex na moom tey moom xam naa ci dara. non fii dëkk nante la. bilaay. fii moom dootuma fi géej. non fii moom ku fi ñëwul mënoo xam mais ku fi xas a teew mat bi tas na de. waaw waaw lan ma woonoon sa teewaay fi. waaw fa si dëgg ngor suñu rakk la. ñu rakk la suñu lépp la xam ñu nekk ba écurie aussi mu jox ñu cër kon bu xel la ñu war a def la teew rek. naka nga ko gisee. waaw confiance. te incha allahu rabi gan dinañ ko wàcceel bu soobee yàlla. Thiatou Rebeuss mer la fanaanoo. ñoo ko gën a mer fuuf ñun fi ñu dëkk dafa rafle champion. yee te dañ nekk ab génération buy jog am boo ñëwee fii rek saa yoo fi ñëwee ñu lay mel kon nga xam ne ñëwuñu pour ay caaxaan quoi. bi nekk premier combat naka la war a jëflante. non ñun min nañ ko ñun ñuy ànd moom min nañ grand combat. kon loolu du problème incha allahu rabi da koy daan si kàttanu yàlla. maa la ko foo toll man maa ngi waaj loolu. yaa ngi waaj maa ngi waaj bu bu baax a baax. combat bi kañ la. amagul date mais su ma ñëwee dinañ xam ne ñëwaat naa. dafa am lu waa làmb di wax si suuf te dama bëgg ñu koy wax si kaw. lan la waa làmb di wax wax si suuf ne a doon. dama bëgg ñu koy wax si kaw ma koy dégg. te loolu maa koy wane li tax ñu koy ñu koy wax si kaw. ci yoon boobu laa ne. kon bon waaw taw feeñ. waaye naa se. waaye maa ngi nii maa ngi si jàmm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 comme ni nga ko waajee yaa ko waajee di ñaan yàlla Siteu may ko ndam parce que wax ji dañuy xaar bés ba ñu def li ñu war a def après le mooy loolu noonu mais ji dina bàyyi de kay bëri mais combat day gaaw day neex wax ji kay saa bu bés bi la ñu xaar mu ñëw ñu def li ñu war a def mu jeex combat xeex dina am lu leer laa wax Siteu dina ko dóor bu taxawee bëre Siteu jàpp ko daan ko lu leer laa lay wax te bés ba dañ ko gis ma lay wax. kontaan naa jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen rajo waaye baax a baax tey nag ñoo ngi fi ak ki nga xamante ni mooy Thiatou Yoff depuis combat moom Youssou Ndour ba léegi génnaatagul tey nag mu ñëw fii ci open press rakam open press xaritam open press boy Thiatou Yoff nuyu naa waaw maa ngi lay fay Ousseyn di la ziar xam nga di nuyu waa Yoff di nuyu waa Ngor xam nga di nuyu dëkku Lébu yëpp maa ngi leen ziar bu baax di leen wax nu ñaanal sunu booy bi yàlla mu dama ko ndam lu seddu ko incha allahu rabbi xam na ki bi bëreel waaw Thiatou Rebeuss xam nañ ko day wax rek mais booy moo dàq bëri quoi. mais est ce que nekkul li mu wax loolu a jëf. non booy moom mën na mën wax quoi mais yàlla may na ko kattan ak xam-xam quoi. mais nag ñoom ñaar ñëppay wax ndax bu Thiatou Rebeuss waxee eh, bi Thiatou Rebeuss waxee Siteu bu Ngor tontu na. waaw c' normal parce que nit ki boo fayu ay lébu lañ ku ñu doon fayu mooy loolu. naka nga gisee sa waay. Siteu waaw comme dab rek moom moom bu amee combat day liggéey quoi ñu ngay ñaanal yàlla defal ko jàmm xam may ko ndam see dugub loolu ngay ñaanal quoi. ñu gis ne combat bi mujj bëre na xeex na mais amu ci amul amul daanu bu wóor nga gànn Siteu bu daanu la gis ngeen combat bi passé da cee daanu combat bi mu ñëw war a confirmer naka la war a bëre. mais Siteu jàmbaar la moom xamul xamul ko jógee xamul ko jógee moom jàmbaaram foofu la ko ñaanal yàlla defal nga xelam nekk si jour combat bu suba rek incha allah est ce que combat bi laaj na xeex laaj na lépp parce que moo sut quoi moom moo moo prolonge man ma ko doon kooñee dama koy la ci tamit. non dara la si waa avantage foofu la quoi. fan euh, di xaar combat doo gars yi ñëw sama avance nag. yan gaay ay ay ñax jaru xam dafa fi dara dañoo mu dóor ko mu daanu mu yàgg dafa fi dara dañoo laajee wax ñax jaru ñax mooy kan moom ko nag caaroy maa moom combat bu neex la bilaay baaru Youssou Ndour mi nga dóor mu daanu moo tax nga bëgg a jël ñax jaru bu dee booy yi xam naa ne léegi ñu jàpp ma léegi ñëw ñëw yow jàpp ma pour une police quoi parce que booy dama leen rey moo tax bilaay bu ma woo léegi léegi sax ko a ñu boole avance bi pour ne avance. bu ñu na loolu. la moo tax nga ne booy bu ñu la ñoom da nga leen di rey. booy maa ngi man billaahi walaay taalaay. booy ba soo bëree wane gu ma ko. barke sëñ Bamba. ci kenn nga ko bëgg wane. si grand yi ay Zarko ay Modou Anta ay ñax jariñ yooyu laa bëgg a wane suma suma suma talaa ñoom ñoo ngi lay seetaan. ñax jariñ Modou Anta ngir yàlla kaay ma ma ma ma bànneexu si mooy loolu kontaan naa ci yow jaajëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu mbokk yi tey ñu ngi fii ci Ngor open presse su Siteu bu Ngor yaakaar naa ne mi ngi dëgmal le 6 mars fële ca stadium Iba Mar Diop digganteem ak caatu Rebeuss le procureur moo tëgg lamb ji ñu koy ñaanal li mu ci bëgg lépp yàlla na ko yàlla defal yaakaar naa ne combat yi am bari na parce que ay combat espoir la yaakaar naa ne lamb xale la promoteur bi ne xale di seen morom ngor gii tey boo fi ñëwee gis na ñëpp génn nañ comme ni mu demee woon keroog rëbës dañuy nuyu ki nga xam ne mooy ngor bàyyi ko mu néew mbokki internet yi yaakaar naa ne ñu tàbbi si waxtaan wi Baye Fall bi da ngay siyaar waaw du wax ne gannaaw bañ sant yàlla julli si yeneen bi di sant suñu ñaari waajur di wax ne jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaarama maam Serigne Fall ca loolu la ko Serigne Matar Mbacke di nuyu àdduna du nuyu Ngor Yoff Waxam almadi Taraawo bi yëpp maa ngi nuyu tudd yëpp eh, di wax ne bisimilah dal jàmm. di leen sant yéen journaliste yi avant tout. Mm-hmm. maa leen di sant eh, di leen gërëm. Eh, ndax ne nit amul dul bësam. Mm-hmm. ñu woote ngeen ñëw. kon balaa ñuy wax waxul làmb dañ leen di sant bu baax a baax a baax. di leen delloo njugal. di leen sant bu baax a baax a baax di leen wax ne yal na leen yàlla fay seen xol ba li ngeen bëgg ngeen amal ko seen bopp ngeen dem ba am seen talay bopp amiin macha allah am na solo gars yi xaadim Fatma Dia Abou Ousseyn ku ci am question rek mën na koo dëmbal tey soo kon presse nga gëstu mbëri yoof yi sax gis nga leen parce que du ma ne mbëri ngor yi mbëri yoof bi seen ñëw tey nan la la def waaw du leen du ñu nekk ay xale rek si tund yaay nekk ay xale jox ñëpp cër kon suñuy grand ak suñuy ñëpp ñu jox leen cër jox leen respect yaay di ñoom caari yoof gaa yi ñoom jéen ak ñu ñëw ñu ñëwul ñëpp ñu jox leen cër jox leen respect xam nga yaay di leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax yow di wax na man liw yi yow liw yi dañ maa yónnee yaa xam di ma quoi moo tax ñu ne caat day nen nen bi foosu caat day day nen nen bi foosu bu bañee bu bañee bu am saa dafay foofu Siteu sa premier grand combat yaakaar naa na nombre de combat yi nga am bariwul yaa ngi jóge ci Franc mbër moom takkusaanam gi tamit gis nga ay ndaanaan yi mu bëreel sa premier grand combat nan nga koy waaj. waaw li ma koy waajee mooy kon bëri ñu koy waajee rek mais du ko raw quoi ne lii du ma nekk grand combat dama naan mooy sama premier grand combat te lan la làmb gi dama kaa soxla dama soxal. ndax a laama ji dama see am cër te dama see war a cër dama see war a naru xam nga bàyyi faale wu nekk jël sa wàll xam moo tax lii nii eh, duñ ne grand combat ñun ñu ngi waaj kon mbër yu mag yi ni ñuy waajee mm-hmm. du ma tudd seen tur quoi parce que dawuñu sama yaram xam nga mm-hmm. mais ñu ngi waaj comme noonu mm-hmm. eh, te dëgg dañoo yaakaar lébu yëpp yaakaar ñu am suñu yaakaar yow du jégalu maire dëkkandoo yi yëpp dérangement bi di wax na xam nga dañ ñëw jàpp si tigé yi quoi macha allah ngay bëreeg ndaanaan koo xamante bi ni bañ na ko ba li mu tuddee boppam mooy le procureur képp koo xamante bi ni jàpp waaw noonu la demee ah waxum dégloo rek waxum dégloo rek xam nga dégloo baat la ak tontu rek dégloo lépp rek ngay bëree jàpp defeere. waaw bu loolu weesoo woo El Hadj di nga woote di nga woote borom question yi. di nga woote borom borom Bambaye xale du Macky Sall maa ngay woote mu mu ne. le procureur jàpp defeere mooy procureur làmb rëbës la dëkk. waaye man la lébu bu am na man la lébu bu am dama am na ba yàqu. man sëñ Ba. ayca xaadim lan ngay xeex. yéen ñaar seen ci mën a xaar ci xeex wala ci bëre kan mooy waaw. yow moom li muy wax noonu man góoma ko xam nga xam nga xam moo desee am sañ-sañ ki nga xam ne arbitre day siffler rek mu bëgg a jeexal laama ji ñun laama li ñu si taamu mooy ñu jure yow kon lému yi ni nga koy waxee ñu jure bu arbitre siffler ñu jure ba pare laataa bëre parce que bëre dóor lañu wax man maa ngi waaj ak samay mbokk kon dañuy bëre bëre dóor lañu wax dañuy waay bëre dañuy jure du ma la xeex lémuy lémuy nee na dañuy jure te bu soobee yàlla nee naa la dañuy jure nee naa la moom bu amul sens nen mi mu war a nen moom damay boobu. bu dàq bëree yéen ñaar bu dàq bëree. waaw coono si làmb yaa na ko yàlla may ndam. waaye Modou Anta man damaa liggéey damaa tooy si làmb ji ñaari yoon bay génneel deret kon damaa liggéey damaa contact ba os instant bi bu doon léegi sax ñun naaj pare nañ. jërëjëf Ousseyn Siteu nuyu ñun ñu gis ne Thiatou Rebeuss ci kàddoom ci waxam respecté wu la benn yoon nee na moo la mën moo la ëpp doole moo la dàq doole. waaw yow man ni ko mos dégloo oh. kon ni ma la ko mën a waxee. waaw mooy caatu Rebeuss. mu ne ma naam. ma ne ko waat caatu Rebeuss mu ne ma waat naam. bu arbitre man Siteu dinaa ko teg ko góor masul teg si àdduna am. tey li ma ko fi ñëw bu baax yéen teg ko góor ma teg si àdduna ok gis na sa combat bee passé nekk na combat nga jekku sa adversaire mais ñu ci bëri gis nañ ne jël amul combat bi ce que mën tee mën nañ cee xaar bu métt ba jël am ci waaw làmb ji xalaat ñàkk la yaay xalaat ñàkk la teg jeexal yaay waa pour wax ne waa làmb oh. man ñëwaguma de sama salaamaaleykum sax jotagul yaa damaa bëgg ñëw lamba ji ñëw na leen waa lamba ji ñu ne ma naa ma ne leen salaamaaleykum macha allah bu fayulee bés yi di ñoom ñu ne ma wax maaleykum salaam te jaat mu ne ma naam man li ma ko ñaan maay xale yow nee nañ ay xale lañ gannaaw combat dafa teel wala yooyu noonu yow nañ ñëw wane na teelul ñu def lépp mobiliser bëri xam nga bëri dóor la ñu wax. macha ñu ngi lay nuyu. waa di la féliciter nag franchement ndax gis nañ ni affaire yi moom duñ ne mobilisation mais benn question rek laa xale nga da ngay mobiliser te gis nañ làmb ji fan yi violence bi dafa bari trop am na sa benn mbokk boo xam te ne kuñ naan euh, Liss Ndiago gis na dañ koo acc trois ans un an de un an ferme deux ans sursis yow nan ngay yabee say supporters ndax gis nañ léegi sànni chaise yi dafa bari mais ban message ngay jox say supporters puisque da ngay mobiliser. waaw a loolu message bi mooy Liss xale la quoi. ñoo ko violence bi tamit ñoo ko sa bokk làmb ji ñu ñëpp ay mbokk lañ quoi. moom day liggéey ñu dañuy liggéey keneen ak keneen day liggéey te lis xale la te dafa si làmb bu jógee dëgg day jóg kon li ñuy ñaax CNG mooy xam nga rek ñu jàppale ko ñu jàppale ko ba mu mën a ñëwaat si làmb supporter ñu ñëw ci fair play parce que làmb dafa neex supporter man samay supporter ñi ay noble lañu ñi dañuy ñi dañuy yow man samay supporter ñii dañuy say sa sol ay sa kese la mais bu yëngu du jot rek dañuy amul sax mais du ànd ak tooñ du dañ tooñ quoi ay lébu lañ ko tooñ. macha allah si at bi dañu gis ne jàppante am na fa sa diggante ak moom diggante bébé Elton ak Wassim Tour ban message nga mën a lancer waa sa supporters yi ñu ñëw ci fair play lu man di am muy victoire di di match ñun ñu ànd rek. ak lépp ak taalibe quoi te ñun xam nga rek ñun ngor lañ dëkk bu ñuy génn suñu xam nga rek suñuy kilifa dañ ñoo yar yaa muy ki si gën a ndaw ba ki si gën a mag mais boo si tooñ rek jóg ji ko mais tooñuñu kenn ñëw bëri si fair play domicile xam nga mais tooñuñu suñu mbooloo dinañ ñëw bu soobee yàlla ñu def li ñu war a def mais lépp si digg bi ma xam nga ñu woo man du wow ma kenn kuy yàq. di wow ma di waxal gendarme yi di wax gendarme yi di wax gendarme yi. samay nit lañ xam nga da lañ jégal quoi. mais ñu bàyyi ñoo teg projet bi xam boo ñëwee nga jël ay gendarme changé leen dañuy ñooy ànd ak su fekkee rek day taxaw pour bu mu def day def mais ñun duñ ay def nag yow di lancer benn message. di lancer benn message. waaw message bi may lancer. lan la zone Ngor yëpp la. waxal Ngor yëpp bi yëpp. yow dafa am yenn élément yu xamante ne yow mooy loolu caabi da leen féete ginnaaw. kan ak kan la. mënuma tudd seen tur mais xam nga rek caabi da leen féete ginnaaw. waaw yow ñu ñaan yàlla état xam nga rek mu libéré ñu suñu ndaw parce que ñooñu dañuy ay tooñkat dañuy ay xeexkat ay xale yu ndaw lañ xam nga voilà ay xale yu ndaw lañ. ñooñu ay xeexkat yu doon kenn kon nañu dimbali état xam nga rek. waaw nañu dimbali xam nga li ñuy joori mën mën ñu ko delloo su ko defee coori fay quoi. incha allah. waaw Siteu ñu ngi lay nuyu. waaw gis nañu si adversaire bi nga xam ne mooy Thiatou Rebeuss jamono ji ñu toll dafa yokk poids bi est-ce que poids boobu yow tey dina arrangé sa diggante ki nga xam ne mooy Thiatou Rebeuss. parce que gars yi nee na moo la ëpp doole. waaw doole yow ñun li ñuy li ñuy liggéeyal mooy doole biir ñun doole biir la ñuy liggéey xam nga nag ay mais jaar lu mu gën a ngand gën a baax te lu mu gën a ngand ma gën koo ah. bal wallaahi lu mu gën a ngand gën a baax lu mu gën a ngand ma gën koo fowe moom naa wax dëgg yàlla ay mboqam rek. di woo ñëpp di woo sëñ Xalil Mbacke yow maa ngi woo sëñ Xalil Mbacke. waaw ñu ngi lay nuyu li ñu bëgg a xam mooy gis nañu sa combat bu mujj. en tant que attaquant wala da ngay ñëw pour défendre sa bopp. nee na da nga ñëw pour attaquer wala défense. waaw am na lu xamante ne du man quoi man ak samay kilifa la. yow ñoom ñoomay teg si nekk wax ma nii ngay doxalee ak nii ngay def xaw nañ adversaire bi nii ak nee